dikkati na gëm sa bopp lii ko dijee naan maan boole ceeg di balek yoonam turbine yéene kaay naan ko déet collecte parrainage bi kay lañ daal soobu nii nii daar daar moom gëm sa bopp daal dinay mobiliser lu toll ci ñaari junneeg juróom ñaari téeméer ci facilitateur séddale leen nag ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ci commune ci réewum Sénégal yéene kaay des média bopp daal raatale réewum Sénégal daal di nag jëmale ci boppam turbine yéene kaay naan maan mouvement bi daal di jàggar mairie mouvement Bougane bi gaaye bu ñuy wax ñu nekkoon ca liggéey ba daal di jël nag ak avance ci yeneen candidat yi maanaam fa nga xam ne gaa yaa ngi fay tourné fekk ñoom ña ngay séddale seeni fiche de parrainage ba daal di wër ndomb nag juróomi téeméer juróom fukk ak juróom ci collectivité territorial fi mu ne facilitateurs yi ak responsable yi su la neexee naan meew mu sedd guy am njarum glace daal di tëdd raay seen dënn ndax nag jàpp nañ ni parrainage bi am nañ ci succès daar daar fédération départementale bu Tiwaawoon bu gëm sa bopp junni ak fukk ak juróom ci parrain dimanche bii rek dibéer gi daal dinañ koy dajale jébbal ko Bougane Gueye Dany nekko ko téyel benn fanangook su matee fukk nga xam ne lépp dëgg la ñaari at a ngi nii pol politique bi nga xam ne Gueye l'original moo ko daal di jiite yéenekaay bi naan ma ñuy taxawal ab appareil politique bu gëm sa bopp boo xam ne maar day taali ci wàllu parrainage bi lañ ca bëggoon ña ko cay am te nag la gaaye naan lay jeex na waa gëm sa bopp naan lay jeex na l'évidence yéenekaay naan ku lalu kay ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak ci commune suñ la bëggee parrainage daañu lambi leneen las yéen kaay naan man ak ñaari junni juróom-ñaari téeméer ci facilitateur ci parrainage bi bugaan géy dani daal di wër ndomb Sénégal gi yëpp ñaabar ñaabari jaagar jaagari fas yéene nag soobu ci parrainage bi moom géy naan leen parrainage bi moom jàll fa yallaahu rek ndax yàlla dogal na ne wër na ndomb senegal te ñu ngi ci liggéey bi te leen leen laa la mun ñoo teree jàll ci parrainage yi ndax la nit di def ba matal parrainage ñun yàgg nañ ca fi mu ne ñaari at nii ñu ciy liggéey te daar daar gii tappaleeg lay moo fi ne de bugaan naan il a parlé rek tribune yéen kaay naan kon waaye l'opposition bi yéen ndax la leen war def ngeen ko fi yéen ngi wax wàllu parrainage waaye la ëpp solo ci l'opposition bi tey jii mooy am ndam ci élection présidentielle yi waaye opposition bu Sénégal ma ne la ndax man nañ ñaabar ñaabari wutim ndam opposition boo xam ne ma ne la lessanciel ci boppam soobu wun ci ndax nag Sénat fichier ba ak lépp loo xam ni appareil d'état la ñoom ci boppam ñooy tëggum élection taxawal ay élection ci mim réew te kon lu neex état ma ne la mooy am ci mim réew l'opposition ba nag la mu soobu ca lool la ñu daal di koy bàyyi soobu ci leneen turbine naan leen ay yàlla baax na yor yor mel ni ku naan kon Amadou Ba bu dee moy seen adversaire des opposition bi bu leen yeboo nelaw ba yandoor ndax daanaka Amadou mi waa partem sax mënu leen rajale bay dajale Sénégal yoor yor naan man campagne bi moom ni mu doore ci boppam te xam nga dañoo jàpp tànk ay adversaire am bàyyi Amadou mu jiitu te course ba waaye taxu koo yegg de xoolal la mu am ca Dagana ay fitna ak i bal yu tàkk daal di am ca sàkkal l'observateur naan kon ko soqi woon ñaari sox yi ca sàkkal day daal di nañ koy yóbbu ca gendarmerie gendarmerie njabootu maam Cheikh Mbay yoor yoor ne ma dañoo waas Amadou Ba ba maar day taali sursoir naan kon kaay fii maa mën maa ëpp doole njabootu maam Cheikh Mbay ci boppam dañu ne Amadou Ba kaay toog fii ñu yedd la moom porte parole ba Serigne Ibrahima Mbay naan Amadou Ba Sénégal métti na njëkk yi cher goo xam ne fi mu ne góorgóorlu bu ne la dafay nelaw fii ci senegal góor bu ne la mi ngi nelaw ba yandoor day wax lu ko neex la jàmp kay ci réewum senegal moom moo di ngeen jàppale góorgóorlu mi nga xam ne sonn na toqi na tàyyi na te xam nga Sénégal gii bu fi yii jàpp ne buñ fi toogee daañu tekki xam nga ne duñ jaayanteeg seen bakkan di dem barsa wala barsàq ga ba fay faatu seeni way jur yi leen jur di leen teggil natt di leen faatuloo njabootu maam Cheikh Mbay naan leen senegal gii ñu nekk nga xam ne paaka ñaari boor moo fi amee justice kumba am nday nga xam ne loo def moo ji doo tëdd kaso ak justice kumba amul nday mi nga xam ne dañuy dal ci kaw gor ñi ña nga xam ne amuñu bàjjen ci réew mi lay wax yéene kaay bi naan man bañ ko waxee day daanaka Amadou mënatul jóg fa mu toog turbine yéene kaay beneen yóbbante ci Amadou xam ne na nag ma ni la ña koy woteel boo moytul baykat yi duñ ci bokk ndax baykat yi nga xam ne ñoo nekk ca Saalum naqar la ñu nekkee fi mu ne ndax nag jiw mboq biñ leen jox te mu bon lool lin am ren jii ci mbay mi mu bon mësuñu ko am ban tàmbalee bay ak tey léegi nee ñu lu toll ci ñaari junni ci hectare daal dinañ koy bay te dara dara góobuñu ko ci ñoom baykat ya nekk ca tey ba ñaseen moom jooy la ñu def ma ne la xàttat la ñu def di jooy ndax xam nañ ni jamono ji lii xeeñ daal neexul yor yor mel ni ku naan kon Amadou xoolal dëgg-dëgg ñi ñooy say adversaire laas yéene kaay naan kon moo ne ay ñoñam day ña ngay wéy di ko dajaleel ay parrainage moom Amadou Ba Souleymane Ndiaye bu S2D lu ëpp ñeen fukki junni ci parrainage daal na koy dajaleel Amadou Ba fas ko yéene teg nag ci taabalu président Macky Sall Souleymane Ndiaye diggante Goudomp Ziguinchor Ndakaaru Nioro Kaolack Pikine Sédhiou cees Mbacké Fatick Koungheul ak Bignona ba ci Kër masaar ba Ndar Géej Malem Odar yéene kaay bi nan man dajaleel na ko parrainage yi fas yéene nag daal soobu ci téeméeri junni ci parrainage yoo xam ne war na ko jébal nag président de la république s naan duñu bàyyi de tànk mataluñu ñaar fukki junniy parrainage yu ñu jébbal Amadou Ba duñu bàyyi tribune yéen kaay naan maan ni ñeenti weer moo des ci élection présidentielle yi leader yi li leen war jamono ji moom moo di booloo ci l'essentiel l'essentiel di ngemb Amadou Ba fas ko yéene utal ay parrainage moom Amadou Ba ngir nag daar daar xel mën dal ci ne Amadou day mën naa jël élection présidentielle yi Ibra naan xiiroo ak i ŋaayoo amatu fi place place bi dëgg-dëgg ngir élection présidentielle présidentielle yu jaar yoon day mooy daal di booloo daal di ŋànk candidat bii di Amadou Ba yoor yoor naan kon Amadou Ba dey na xam ne bu ko réew mi yépp ŋànkoo nit Sénégal li muy dund jamono ji moo koy xattar bi ba biir weex daal di tekki ci suuf voix du sud naan man ak jafe-jafey Ousmane Sonko Ousmane Sonko wopp na de réew mi ko diñee naan man lu mu wopp wopp moom Ousmane Sonko nee na teranga bu pavillon spécial ba na génn moom Sonko naan nañ ma delloo daar daar ci prison bu Sébikotaan la voix du sud naan Ousmane Sonko ma ni leen fi mu ne mi ngi ci réanimation la def boo xam ne maar day taali direct news naan maan boobu yeneen ci candidat ña ngay doxal Abdoulaye Sylla daal di yëngal sigi coor ci week-end bii Bourama Jéeme deuxième adjoint bu maire bu Mlomp naan xamuñu ko waaye nag li muy def ci wàllu social ci néew ji doole yi daal tax na sunu xel daal dal ci moom fibre patriotique fi mu ne moonu daal di yëngal ay maire woon yu nekkoon ci commune bu Bignona daal di démissionné ci Benno Bokk Yaakaar ay responsable démissionné ci Pastef dem fekki ko gannaaw lii lépp amee entrepreneur bi daal di lu ma mën ci askanuk Sénégal ñaqal ko waaye waaye te teggil leen coono naa ko def fi mu ne sama mbëbët sama bëgg-bëgg moom moo di suqali askanuk Sénégal turbine yéene kaay naan kon bu leen fàtte ni béykat yaa ngi sëngéem l'enquête quotidien naan kon bu leen fàtte ni it ña ngay politiser université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru turbine yéene kaay naan kon may ma ma ñëw xam nga université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dañu ne rentrée bi dañ koo dàqaat fii ak ñaari weer maanaam ci weer décembre la cours di tàmbali foofee étudiants yi daal di koy naqarlu ba jaamaarloo daal di ciy juddu ni ki démb moom njiital kuut ne leen conseil d'administration ba day lenn la ñu bëgg laataa université bi di ubbi mooy ñu def kéemtalaay kàttan ba kaaraange am ci université ba fexe ba nga xam ne amoon na benn fan ci weeru juin bii ca université ba dootu fa amaat màgget seen ne conseil d'administration bu UCAD bi daal dina ñuy dajaloo ci aljuma ji ne nag du ñu nangu benn yoon université bi daal di ubbi ñi nga xam ne ñoo fay liggéey seen bakka nekk ci xottu gerte màgget naan du man maa dogal du man maa tëj du man maay tijji dogal bi daal dina may weesu conseil d'administration bi ak recteur bi ak doyen faculté yi niki directeur bu enseignement enseignement supérieur yi représentant primature ak contrôle financier bu ministère des finances niki noonu syndicat liggéeykat yi ak ñaar fukk ci représentant étudiant ñoo bokk waxtaan wi xam nga université bu mel ni Cheikh Anta Diop daanaka Afrique di ko daal di sagoo bu ñu ko tëjee xam nga ni am na lu fa nekk dëgg la ay étudiant faatu nañ fa waaye dem nag bay taal université di taal ay amphi di taal ay bibliothèque di taal ay bureau di caxat caxatee ab université di sàkkukaayu xam-xam Sénégal mësta xam lii kaaraange étudiants yi ak ña fay liggéey lay taali tegu ba nuppi turbine yéene kaay naan maan booba Cambérène a ngay suqaliku ak suqali Cambérène moom maire ba dun paate mbeng daal di jébbal ñaari téeméeri million ci suñu koppar subvention jigéen ñi di ay crédit yoo xam ne soxna yi daan ci man liggéey fas yéene sóob soxna yi ci wàllu tàggat waaye mënal seen bopp gannaaw ba mu fexe ba soxna yi Cambérène yi mën a bokk ci couverture maladie universelle ci wàllu environnement ay jéego yu am solo am ca Cambérène moom commune Cambérène fas yéene jàppale soxna yeeg ndaw yi dun paate